بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر mbokki جلتي yi mbokki taalibe yi نيو nuyoo أك cant ak ndokkeel dafa أي sànni tey fii ci jataay bi ni ñu ko daan defee ci yeneen i jataay ñoo ngi leen di ndokkeel di leen balu àq di leen masu jataay bi yàgg na waaye yàggaay bi ku xam du doon looy rëccu day doon loo xam ne danga koy fàttaliku di ci bég waaye lépp a ngi lalu ci yéene innamal amalu binniyaati yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax sëñ Tuubaa moom la tàmbalee xoqal bukaaw bi nga xam ne moo fàkk yoon wi yoon wi ci kawam la tëdd mu ubbi bunt bu ubbi woon bu jàgg xotti yoonu boppam li ñuy wax originalité ci tubaab yoonu boppam boo xam ne moom rekk a mën a xett li jamono ji mu ñëwee di yoon wi gën a gàtt ci yoon wi di gën a yu gën a metti ci yoon wi di gën a tiis ci yoon yépp daan waxtaane loolu suñ boroom tabaraka wa taala nee na wa man yabtaxi xayra alislaami diinan falan yuqbala minhu yowmal qiyaam képp ku teew fa kanamu suñ boroom teew fa benn diine bu dul lislaam suñu borom du ko nangu te danga bokk ca ña perte perte moo di lan mooy li jar di muslu fu nit toll ndax fa jëm dara du fa doy te nit ki dana bala cay àgg dana jaar jaar jaar yoo xam ne ci lay xamee boppam ndax ku kiilu la ëllëg walla kuy am tiis nit ki nga koy tàmbali yéege ci buy waaj génn àdduna ñu koy faral di waxe nga xam ne li gënoon a bëgg loolaa koy gën a soof yàlla nag dafa bëgg jaam ñi ñépp jullit ak yéefar muy bëgg gu njëkk faral nañ koy waxtaane ñaareelu bëgg gi mu bëgg ko ñi ko gëm rekk ñetteelu bëgg gi mu tànn ci biir ñi mu bëgg ay jaam yoo xam ne ca azal ba mu bindagul dara ndax xam ngeen ne yàlla moom nekkul ci jamono nekkul ci bërëb lépp a teewandoo fi moom léeña bi bis bu saadi taxaw ak la koy jiitu tuuti ak fii nu toll ak la weesu woon ñoo teewandoo amul teeg ëllëg amul itam béréb bu muy nekk ak bu mu nekkul suñ boroom jaam ñi nga xam ne yërëm na leen nga xam ne ñoom la bëgg bëgg gu njëkk ga ni si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu mi suñu borom daf leen a won ci boppam kàttan gu leen jaral ñu jaamu ko ba daggatoo wan leen taar boo xam ne jaral na leen ñu di ko jaamu ba daggatoo wan leen ci boppam sañ-sañ boo xam ne jaral na leen ñi di ko jaamu ba daggatoo ñu gis sañ-sañ bi suñu borom sañ xam ne nit sañ na nit di ko jaamu bi mu juddoo ba ba mu deewee mu dugal ko safara te du ko féete fenn nit di ko moy ba mu juddoo ba ba muy dee mu dugal ko àjjana te du ko féete fenn mu waxe ne yowmal xiyaam dana sëq loxoom ci jaam yi sànni ci safara ne faaliwuma ci dara sëq ci jaam ñi sànni àjjana ne faaliwuma ci dara loolu lépp dafa fekk gannaaw moom nekkul ci jamono lay ñëwi lépp mu ngi teew teew boobu loolu teew ci kanamam moo tax sabab yi am sabab yi mu sàkk ku bëgg lii defal lii ku ragal lii jaaral fii wattandiku ko bu dul woon loolu kenn du ko ñaan mu may la ndax bu fekkente ne bind na la kat yow lii nga war a am fii nga war a jaar fii ngay mujjee ba noppi ci boo ko ñaanee bu la mayee leneen lu mu dundul woon day dal di nekk kon weddi ay waxam dindi la mu defoon waaye ni mu demee moo di dafa laa gis nga dund ci àdduna ba noppi wattandiku yi nga war a wattandiku yépp sabab yi nga war a sabab lu yépp ba àgg te dara ñëwagul mu bind ko nag misaal naa ba tàyyi ne buñ ne gàllaaj na muy jëriñe ànd ak li ñuy wax prédestination suñu borom noppi na wala ñaan wala sabab bu mu doon ci misaal yaa ngi ñaan lu ji gudd fan suñu borom ca asal sa dund gii nga jóg di ñaan loo mucc te waxtu wi ngay jéggi tali bi oto bu gaaw a ngi ñëw war naa dal ci sa kaw xamoon na ne kat danga nga sarxe sarax bii tax oto bi du dal ci sa kaw danga nga ñaan lu gii tax oto bi dal ci sa kaw da jëf-jëf ji tax oto bi du dal ci sa kaw kon noppi woon na ba noppi loolu mooy noppi waaye nag bu fekkonte ne ñaan lu jiwoo wala sarxi woo oto bi dana dal ci sa kaw daf koo xamoon ba noppi ca mel ne film boo seetaan ba mu jeex nga dogal nag masalan problème la ba ñu yàgg posé naan nit dafa libre lu ko soob def te mooy tax mu yeyoo ci jëfam yu baax yool mooy tax mu yeyoo ci jëfam yu bon mbugal loolu nag buñ seetee ne suñu borom nekkul ci temps nekkul ci espace nag dañuy daal di comprendre loolu dootu am contradiction dootu amuk jaaxle ñi ko xam dañuy daal di xam ne noonu la lépp demee jaam bi nga xam ne nag ñëw na ci àdduna suñ boroom wane ne sàkk naa ay sabab ku bëgg a mucc jaaral fii koo xam ne seewoon newul ci ëllëg lay ñëw doo ko fàttaliku mukk du la yàqal dara du la tax a jàpp du la tax a bàyyi gis na la mu ngi la xool na la ba nga dugg fa nga war a dugg ba noppi ni mu xoolee ki ci des ni mu war a dugg ba noppi ñu ne kon suñ borom tabaraka wa bi mu sàkkee àdduna sàkk àlaaxira jaam bi mu sàkkal ko jaar jaar yoo xam ne du jaas mukk fokk mu jaar ci te lépp lu mu def ci lu baax dana ko ko fay lépp lu mu def ci lu dul noonu benn mu baal ko ko wala mu fay ko ko te xamuñu ci dara nag xamuñu ci dara luy sunu yoon mooy lu mu nu sant rek nañ ko jéem a def lu mu nu tere nañ ko jéem a bàyyi léegi li fi sëñ bi toog sëñ Mourtala xam le ne waxtaan wi ñu war a waxtaane xam nañ ne lislaam rek la bala ñuy dem ci muridisme ndax muridisme ci biir cadre l'islam la nekk lislaam jullit ñi ñooy maas bi mbooloo mi nga xam ne daanaka ñoo bokk benn daraja ñu sàkk nag ñu engagé ci yoon woo xam ne mooy tax ñu féete kaw ñi ci des ñooy tax ñu gën ñi ci des ñooy tax ñu am li ñi ci des amul loolu mooy tariqa yi ñëwaat ak tariqa Cheikh Ahmad Bamba ni mujj ñëw ni ñëwaat kon jaam bi di ngeen ko bi de bu fekkente ne danga xalaat tuuti li tax xalaat baax te xalaat li ci gën xalaat ëllëg fi ngay jaar jaar-jaar yi ngay jaar bu ko dee xalaat te faral koy def dana am melo yu melowoo yu bokkul ak ki ko dul def lu dugg bala nu dugg ci loolu waxtaan nen ba tàyyi ne suñu borom alquran borom xel yi la ci waxal ndax am suñu borom sax tabaraka wa taala alquran moom yonent bi sallallahu alayhi wa rek la ci waxal yonent bi nag moo war wax nit ñi moo leen di xamal luy alquran ak lu alquran jublu ndax diis na diisaay goo xam ne ñi ko ragal moo tax ñu ragal ko waaye yonent bi sallallahu ci ay jëfam ak waxam mooy xam ne loolu le bu yonent bi sallallahu taala alayhi ñëwee ne Eesa kat dana dellu siwaat te ab yonent la boo xam ne matalagul woon mission dana dellu si mottali ko bi mu ñëwee nag doomu aadama yi ñàkk nañu koo xam nañ ko war a xame ba teg ko fu bokk ak fañ ko war a teg ba daganal lu xaraam lu bari mu war a dellusi nag bu dellusee ci cadre lislaam nekk ab saxaabi yu mu bokk ci saxaaba yi ci yonante bi sallallahu boole kook nubuwaam ak risaalaam nga jiitu woon bu sallallahu alayhi wa sallam nee dana ñëw dana rey mbaam xoox dana tuur sàngara moo di ni nga xamee ne suñu borom ci boppam dafa tere yi mu tere yépp yemul ci sàngara ak mbaam xuux day misaal mi waaye lim tere lépp eesa dellu si tuur sàngara rendi di mbaam xuux mooy dana matale àdduna bépp ci jaar ci yoonu jub maanaam lu ñu fi doon tere te yonent bi ñëw tere ko te ñi nga xam ne dugg nañ ci weneen yoon wudul yoonu muhammad sallallahu alayhi wa sallam tax ñu ñàkk dégg yoon woowa dem demee ba daganal lii moom ci boppam mooy dellu si moom eesa wan leen ne leen yii yëpp tere woon naa ko yéena xamul li ma wax waaye damay dellu si mottali ko ulama yi am na si ñoo xam ne defe nañ ne du dellu si ñi xam ne danañ dellu si xadis yu bari lañu sukk ak ci alquran alquran ñaari aaya benn aaya bi nee na wa innahu la ilmun li saati fala tamtaruna biha bi mu tuddee yonte àlla isa wala ma jaa isa bi bayna qala qad jitum bi likmati wa bayna lakum ba'da allati taxtalifuna fi fattaqu labaati inna rabbakum amnun ca gannaawam la nekk wala ma duriba ibnu mariama masalan ida qawmuka minhu yasudduna wa qalu alatuna xayrun am huwa ma darabahu laka illa jadalan bal hum qawmun xasimuuna in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alna masalan li bani israila wala nasa wal ja'alna malaikata fi yaxlufuuna wa innahu la ilmun li saati hu jooju ba tey mu ngi dollu ci yonent Isa mu di dellu ne wa in min ahlil kitaabi illa la yuminanna bihi qabla mawtihi amul kenn ci ahlul kitaab yi muy yahud muy nasaraan lu dul balaa muy ñëpp gëm ndax da wax na ne dana dellu si feesal adduna bi ak ak ragal yàlla na muy fekk bu dellu mu fees ak jeng ak tooñ ak réer ak bàyyi fàtte yàlla dana dellu si insaan nag ak dellu ak li ñuy wax mahdi yu lu ko waral gannaaw loolu mu mottaliwul woon mission te ñu fës ko yéene rey ba suñ boroom ne walakin shubbiha lahum wa ma qataluhu ma salabu suñ boroom nirale jeneen jëmm ji nga xam ne ndax yahud yi xamuñu woon Isa ñi ñu yebaloon ñu di ko seet xamuñu woon jëmmam joxoon nañ leen rek ay tegtal bi ñu dikkee nag ki nga xam ne moo war ci daa dem ànd ak ñoom ba dellu si nag di ko wane bu ñu dikkee fi Isaa daa nekk jiitu leen ne leen bu ma fa yàggee rek ni ngeen xam ne fekk naa ko fa ngeen ñëw rey ko Seydina Jibril ñëw summi deru Eesa solal ko maanaam loolu ci misaal rek mooy walbati ko ba mel ne Eesa tere boo xam ne suñu borom a ko jox mu walbati ko ba mel ne Eesa kooka la ñu réew alquran moom nee na réew ñu ko waaye nag suñu borom daf bal rafa awlaahu ilay suñu borom daf ko fii jëlee jële googu mu ko fii jëlee tamit si moom jeexul day dellu siwaat nag mottali ko mooy wax ci Eesa léegi bu fekkente ne lislaam gi nga xam ne cadre bu yaatu la lu njëkk tàmbalee ci lislaam ci boppam ak yaatuwaayam ak mbirum tariqa ak mbirum waaju baax ak luy jeexiiti waaju baax ak wuute bu ñuy wuute ak ñiy jëriñ ci ñoom fu ñuy jaar bay jëriñ ci ñoom muy li nga xam ne bokk na ci li gën a am solo ci li ñuy waxtaane ni ma waxoon ne jullit ñëpp ñooy maas bi koo xam ne kii danga julli danga nga woor doo naan sàngara doo moy li sharia tere yépp bàyyi nga ko comme ni nga ko mënee di def lim digle lépp yow yaa ngi ci maas bi nga xam ne seen daraja mu ngi toll ci xamuñu lu ñuy mujje xamuñu siinu mujj ndax bu ñu nee bay bëgg dee ba jege sukuraat suñ borom dana leen dugal ci yoonu safara wala déet ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe wala dana leen bàyyi ca lañ nekkoon ñu deewaale ko ñu am xisaab am laajtoo ci taraayu bàmmeel am jéggi siraat bu gaaw wala mu yéex am njàqare ca taxawaay ba mu jullit ñi nga xam ne ñu ngi góor góorgóorlu ci li ñu leen digal di góorgóorlu ci bàyyi li ñu leen tere am nag ñeneen ñoo xam ne engagement bi nga xam ne militaire bi nga xam ne léppam nguur gee ko amee mu joxe léppam mooy tariqa tariqa li mu firndee woo dama waxoon ne adduna bépp hôpital la mbindeef yépp ay malaat lañu malaat bi du malaatu yaram waaye malaatu ruux la yonent yi ñëw di leen faj yonent yi bi ñu fi jógee am na ñu leen doon ci zahir am ñu leen doon ci baatin ñu leen doon ci zahir ñooy ulama yi nga xam ne ñoo jàng sharia ba xam ko di ko leeralal nit ñi ñooñu rek dañoo wax ne daa ji ñuy binde téere yi ñuy jàngalee lislaam daajam ñoom lañuy ñuy peese yowmal xiyaam ak rangooñi aji ragal yàlla ji ragal yàlla dëgg ba guddi mënu nelaw muy julli di jooy rangooñ yi tuuru rangooñ jooju ak daa jooju ak ci bàyyi léppam nga xam ne adduna medd mi mu doon dara takku ko ci ba nga xam ne bu deexee soxlawu la sang mooy shahid bi nga xam ne dafa bàyyi këram fësatu ci yéenee dellu si bàyyi fa alalam fësatu ci yéenee dellu si bàyyi fa ay doomam ak soxnaam fës yéenee dee ci yoonu yàlla dem di jihaar ba ñu rey ko deretam jooju ak rangooñu aji ragal yàlla yooyu ci guddi ak daaxi aalim boobu lañuy ñuy peese yomal xiyam bu ci gën a diis kon na aalim bi nga xam ne mooy xamle yoonu yàlla rek te ndax aalim bi benn li muy wax mu di ko jëfe muy dëgg ci moom wala mu bañ koo jëfe bu fekkoon ne li muy wax daf koy digal nit ñi rek ñu di ko def te moom du ko jëfe aji perte ngoog Maodo Malick nee na araaka siraajan yaxraqu dahra nafsahu ngay làmp buy lakk boppam ngir di leeralal ñeneen mel ne sondeel bu ñu taal muy tàkk bay jeex di leeralal ñeneen te moom daf koy lor mooy alim bi nga xam ne day wax te li muy wax du ko jëfe bi nga xam ne nag day li muy wax ak li mu xam daf koy jëfe moom moo am daraja jooju nga xam ne gindi gi muy gindi bindee fi ci bindam moom la ñuy peesee ka bakkanam deretam ànd ak yonent sallallahu alayhi wasallam wala njiit loo xam ne sharia jiital na ko ak ki nga xam ne moo doon jooy guddi rangooñam yooyu ki nga xam ne nag moo kooku mooy ki doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci zahir ki ko doon ci batin mooy kan mooy ki nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala ba mu bindagul ci azal nga xam ne iraada rek la jëfandikoo gis li ami lépp na mu ko war a doxale mu sàkk ay soppeem yoo xam ne daf leen a sopp ci azal ñu gënal ko ñi ci des ñëpp gannaaw yonent yi ak malaayika yi nga xam daf leen boole ci boppam xamal leen ci boppam loo xam ne sañuñu koo xamle may leen ci boppam loo xam ne sañuñu koo wax may leen nag lu ñu sañ a wax Abu Talib al Makki wax na ci téeram boobu ne inna lillahi ibadan law saaluhu an laa yuqima saata lam yuqimha suñu borom am na jaam yoo xam ne bu ñu nekkoon nga la bu saa taxaw mukk suñu borom dana fomm yowmal qiyaama jaam yooyu loolu na mu demee ndax yowmal xiyaam day suñu borom wax na ko ba noppi ci alxuraan yonent bi wax na ko na muy mën a bañ a amee du mën a bañ a am waaye loolu mu ngi demee ne rek sàngam de bu ko dóoran coroon sama jaas ji ci baat mu dagg mu dee lu am la waaye doo ko def mukk jaam bi nga xam ne bu ne woon suñu borom nangam ji ma ci bu ko def yàlla may na ko loolu rus na suñu boroom ragal na ko fonk na ko ba du ko ñaan lenn loo xam ne lii dana déranger dara ci ngooram gi te bu ko naroon a def fekkoon na suñu borom kon moom xamoon la lépp ni ma ko misaale sànq ba nga xam ne kon du wax lenn loo xam ne lenn dana ko dindi ndax nekkul ci temps nekkul ci espace ni ko faral di waxee rek jaam li nga xam ne suñu borom fonkoon na leen sopp leen ci azal seen ruux yi ndax yonent bi suñu borom tabaraka wa taala la njëkk a bind ruu ci boppam wax nañ ko ba tey principe la boo xam ne dafa leer di leer jóge fu leer jëm ci fu leer dëkkee leer dara mënu koo taas moom ci boppam nit ki nag jot ko bi mu ko jotee tilimal ko ndax yaramam ak bëgg-bëggi addunaam nit ki war a yaraat boppam ba roo gi melaat na mu meloon bu njëkk ci leeraay ñu seet jëmm yi nga xam ne nag suñu may na leen ci boppam loolu fonk leen fonk googu ci azal ñu amul mbokk ba nga xam ne ñoo gën a bëggante lépp luy bëggante mën naa leen dox ay misaal donte sax fa ma ko war a waxee àggaguñu fa ñaar yëpp di lu ci nekk ku ma xam moo di ba nga xamee ne suñu borom may na leen ba noppi woote loo leen ñu woote ruu ya xeetoo woon ak seeni ruu te gën a woyof wuyu si leen ba nga xam ne xettil na leen mu mel ne doom yu tuuti yuy nàmp ci seen yaay bi ñu dikkee ci àdduna suñ borom sant leen loolu le mënuñoo def lenn lu ko yàq waaye nag daañu wone ne lislaam jullit ñi dañoo war a bëggante def seen bopp benn bokk lu ñuy yëpp bokk lu ñuy xalaate ndax dañoo am ay noon yu bari ndax dañ ne al kufru millatun wahida kéefër benn diine rek la lu ñu wute wute ñii ñii seen xeetu kéefër ñii seen xeetu kéefër ñii lee seen xeetu kéefër waaye yépp benn lañ ci benn lañ ci suñ sañoon lislaam fay julit ñi bu ñu teqalee seen bopp ba ñàkk solo ñoo ko teg seen bopp ndax lislaam santu leen ko lim leen sant buñ ko defee daañu jubóog ñëpp daañu am jàmm ñëpp te kenn du leen umpale itam ba di leen bañ ndax nit nee na annaas insa adaawu maa jahiloo Seydina Ali moo ko wax nit ki li mu réere rek lay bañ noonu li mu réere la waaye muy lislaam muy lépp lu baax ku ko xam rek doo ko bañ ku ko xam da nga ko bëgg waaye jullit ñoo ñoo nasax ba mënuñoo fexe ba déggloo ñi ci des lislaam da nu wax ci kanam ne loolu bu ñu duggee ci muridisme ci sëñ Tuubaa lañ koy wax ne li mu convaincre ñu war a tax ñi bu juddoo woon France wala Allemagne wala Amérique it noonu lay convaincre ñooñu ndax dafa indi preuve yu doy yu leer yoo xam ne kenn mënu koo xam ba noppi bañ a nangu nga xamee ne l'islam dafa indi preuve yu leer yu bari yoo xam ne kenn mënu koo xam ba noppi bañ ko lu dul nga xam ne dañoo bind dañ laa bind ci texee di dëgg dëgg dëgg dëgg texee di mu ne nag noonu ñu wax waxoon nga xam ne ku mel ne si Ahmadou Bamba la taala anhu nga xam ne dafa xam le ne suñ borom gërëm na ko ba noppi gërëmal suñ borom moom yemul ci yërmande ah mën nga am yërmande te doo àgg ci am ngërëm ngërëm moom la koy mayee lu metti lay doon fekk na ñu yéene la ko ca azal waaye daañu la jaarale jaar-jaar yu tiis bu ñu seetee ne bu bala nuy seet sëñ Tuubaa ñëw gi mu ñëwoon fii ak niñ ko tox toxale woon ba indi ko fi mu seetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróomi at yi nga xam ne ca xisaar maanaam euh, blocus bi ñu ko defoon ca xurwa ñoom banu hashim kenn du leen jaay ñam kenn du jënd seen li ñuy jaay kenn du leen dimbali kenn du wax ak ñoom kenn du takk ci ñoom soxna du ñu leen may soxna ba ñu lot fa ba xiif ba lekk xobi garab abu taalib mi daan aar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge fi sayyidatuna xadija mi daan aar yonent bi sallallahu alayhi wa jóge fi yonent bi ne ndax ma dem taayif ndax ma am fa ñu gëm yoonu taayif ni mu soree ni mu mettee mu dem ba àgg ñu accueillir ko la gën a metti la gën a soof muy yoon woo xam ne yoonu tiis la di yoonu mettit di yoonu taskare bi mu demee ñu fontoo ko këyitloo ko mokke ko boole koog nag dof ya ak xale la ñu di ko sànni xeer di ko dóor ay yet ba mu jaaxle ba sàq ab ñag jaar ca dugg ci tóokóor sëñ Moussa ka dafa ne te yàlla kat xarit balay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ku muy baal ku yàlla sopp fab na toom ya teg la soo ko muñee sëriñ bi ñëw musal la ndax bala laa wóolu ba jox la mbir ya nga muñ yenam ba aw ca tànki mbir ya sëñ Tuubaa bi muy ñëw fii fekk na mu am tiis yu bari am naqar yu bari am xat-xat yu bari ak jafe-jafe yu bari ndax lu tax ay tiis tiisam mu ngi njëkk a tàmbalee ci doomi soxna yi nga xam ne ñoo bokk ak moom diine bokk ak moom ak mbokk ndax nit ki bëggul ku ko gën ba mu jógee ak ni mu jógee ak ni mu mele ak ni muy doxale gêné na ñi ko magoon te di ay doomi soxna di ay mbokk jóg ne day féete ñëpp kaw ñu doxale nañuy doxale nañu doxale lu gudd la ñu jóge ci buuri réew mi ci boppam buuri réew mi dégg ngeen xew-xewam ak buur ba ci xare Samba Sadio dégg ngeen jaam yañ ca jàppoon te xare ba sëñ bi gis ne jaarul ci yoon ba jaam yañ ca jàppe woon ak alal jañ ca jële woon yépp lewul ba tax jàngkat yi nga xam ne ñoo àndoon ak buur yi te daganal loolu muy yet wu leen dal te bañ bokkee jataay ak buur ba yépp damay bari bañ a jaar ci tur yi ñu gis ne moom muy ndaw ci ay at moo wax dëgg lépp di gêner doomu soxna yi xam la it ne li nga xam ne jàngkat yi ak doomu soxna yi daanañ ko def di jaxasoog buur yi ba muy ndaw ci zahir daan bind leetar di sànni ci kaw lalu waajuram ko xamal ne nit yi adduna yi jëruñoo jaxasool seeni alal seeni alal daganul jaxasoog ñoom ku ko def yërmande yàlla daf lay jafe ndax dañ lay dugal ci lëndëm wane ne moom it ba muy ndaw biñ ko jéemee jaarale ci yoon woowu xaalu li yarkan li abwaabi salaatin gis ngeen dégg ngeen ko gis ngeen xasida gi ba tàyyi loolu it daal di dox digganteem ak ba tey doom soxna yi ak mbokk yi ñépp xaw koo beddi ko mu dolli ci leneen mooy xotti yoon woo xam ne kenn mësu koo xam xamuñu woon loolu lu mu doon yoon wi lii wan xeetu yoon la wan xeetu diine la wan xeetu jaamu yàlla la loolu it tax ñu jàpp nag ne ak xeebeel a ngi ci moom boo xam ne xeeb na leen ko te loolu mooy li ñu xalaat rek ci seen xel waaye moom du ko jëfe mukk ñu soog a dem nag ci yeneen buur yi nga xam ne tubaab bi ñoo leen faloon ñoom itam gis ne mbooloo mi nga xam ne ñoo topp ci moom te dégg ndigalam ba nga xam ne ndigalam lañu jiital ci ndigali euh, chef yooyu ñu bind ay leetar ba tey loo xam ne ci loo xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko di boole di jaxase ba bi ñu ko jëlee Mbàkke Baari nga xam ne loolu lépp ci réew mi bi mu génnagul dem ci exil bi jafe-jafe yooyu ak tiis yooyu ak metti metti yooyu boole koo di xeex ak bakkanam fu mu toll tiis yooyu yëpp nga xam ne fokk nit ci gëm yàlla ba fa gëm di yem am fit dàq muñ ñëpp ndax ay tiis la yoo xam ne kenn mënu koo muñ bu ko sa bu ca sëg muñ àggee it sa bakkan mën na ko bañ a àttan nga faatu bi nga xamee ne loolu xew na mu dal di xam ne nag moom mi kët mboolem lu doomu aadama doomi soxna di sàkku bu dee xam-xam ci zahir wala ci baatin walla ci jub wala ci ragal yàlla am na ko waaye ba tey des na loo xam ne lii moo tax mënatu la nelaw nee ñu dafa woor ba ngoon jot mu ñaan suñ boroom mu won ko yooli jaamu ko ci yàlla ñëpp mu gis ne waa ahlu bëgrin daal ñoo ci gën a rëyub yool mu dal di xem mu yool boobu kooku loolu waxtaane nañ ko ba tàyyi waxtaane ni itam ni ñuy waxee ne ba mu yëree xol yi ba suñ borom yëree xol yëpp ci waa jamono ji mu gën cee sopp yonente bi sallallahu sallam la ko def xaadimu rasul waaye loolu lépp nag dañ ko xamal ne ko lu ñuy jaay la ci gàttal ndax loolu xam nañ ko yàgg nañ koo dégg moo ko indi woon fii bi mu ñëwee fii muy béréb boo xam ne ku fu tumuranke la ni sallallahu alayhi wa woon ca Taif waaye tumuranke boobu mu moom yëgu ko fépp mu ngi xalaat ne lii moo koy may la muy wut rek bànneex la koy def gis ne gannaaw moom nee na téere yi mu bind yépp ak raqib ak atid ñi nekk ci kaw mbëgg doomu aadama yi di bind ak weer yi ak at yi ak bis yi ak jamono yi dañ koy seedeel mu dal di téeñu xam nga ne boo bëggee yenu lu diis day da nga fekk na moom téeñ bu ma téeñ woon nag moo di bëgg koo xam ne gii tax na mu mën a muñ lépp waaw ah, bëggam xam ne moom la bëgg yàlla bëgg ko yonent bi ba tax lépp lu mu daj rek du ko yëg du doon dara fi moom lu dul mbég lay doon ci moom li ko indee fii mu toog jataay yi nga xam ne suñu borom yëmul ci féewale ko jaam ñi ba mu tumuraanke yemul ci génne ko fa mu dëkkoon ak ña mu xamoon ak ña ko gënoon a bëgg moom ci boppam mu di ko xor ñooñal ndax bëgg gi ko bëgg nettali nañu mellantaan yi ko suy wax nañ ko ba tàyyi nettali nag wa nettali sardine sa mu jëndoon ba nga xamee ne gëj na mos lu jëm ci lu ñuy rey te mu dem ba yëg ne loolu dana néewal kàttanam na mu demee dégg ngeen ko ñaari yoon wala ñetti yoon li ko teg yëpp ni mu daan nattoo bopp moom itam di seet fu gëmam yàlla toll di teg boppam loo xam ne benn mbindeef xalaatul di ko teg sa bopp te lépp mu di sa mucc ngir xam ne nag rek moom kat yoon bi nga xam ne moom te mooy tax mu am li nga xam ne yeneen amuñu ko ñu xam ne kon mu nga ca yoon wa te kon fi mu jëm jaar na ci yoon wa te dana ca àgg wóor ko ne rek dana ca àgg ndax nee ñu ba mu ñëwee dafa ne bu ma agsi woon te fekkuma ci àdduna lenn yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu dul suuf si mu daan dëgg wala jant bi ko daan tiim war na li muy wut danaa ko li may wut danaa ko am loolu dogu gi mu dogu ak muñ gi mu muñ ba tax mu jisee noonu mbir yi béréb yi mu teew nag te bërëb yëpp bërëb bu mu teew nga xam ne na nattu ba mettee ak na tumurànk ga mettee noonu la yéeg gi mu yéeg di jëm ci yàlla di gaawe ndax nee na suñu borom sàkk na jëmm yoo xam ne ci jàmm lañuy ñuy àggee ci yàlla ñooy ñi doye di ñi sàkk ñoo xam ne ci tiis ak metit ak naqar lañuy ñuy àggee ci yàlla te mooy ñi gën a foor mooy ñi nga xam ne seen engagement dafa mat sëkk sëkk te mooy moom bi nga xamee ne nag moom sorel nañ ko lépp lu mu xamoon ak lépp lu mu bëggoon te téewul ngëmam gën a dëgër gën a yokku su borom àggale ko ci yéege na ko bi nga xamee ne jox na ko li nga xam ne moo taxoon mu jóg te boole na ca yi mu jaayoonte moom te ñu lim ko muy lajak ministrallahu lëj ministrallahu ka yooyu yëpp boole ci yi nga xam ne moom la tànnal boppam teg ko boppam bi nga xamee ne matal na yooyu yëpp gannaaw bi nga xamee ne def nañ ko lu mu bëggoon ba noppi ñu may ko nag loo xam ne moom ci boppam xamu ko woon ba di ko jéem a wut wala qaada sirran raaba an gayri muhit mu ne suñu borom yónnee na ma moo xam ne ku dul yàlla ump na la lu doo xam ne kenn xamul lu mu doon kon bërëb yi nga xam ne kon ñëw na fi muy bërëb yoo xam ne du ñu dañ di ko seedeel ba ba saa taxaw bërëb yooyu seede si nga xam ne moom lañ koy seddeel te ay malaayika di taxaw amee ruuxu bërëb ya ak ruuxu seede sa ndax wa in min shay'in illa bi bihamdihi tumurank gi mu tumurank woon tax gën a yokk màggaayu bërëb bi ak njër bërëb bi jëmm ju fa ñëw ca sa ngëm mat nga teewlu li mu daj teewlu nam fa dikke woon teewlu yooyu yëpp jëmm ju mu doon da am loo xam ne sa moroom ma ko deful du ko mën a am ndax suñu borom dafa am ci jamono yi ak ci béréb yi fu fi nekk lu mu jagleel loola te loola duutu dañ mukk bu seetee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamee ne mu ngi dem ci xare Tabuk te xaw ma aat bañ leen alakee ak bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee kenn xamul ñaata at la la defoon ba ñu alak leen gaafu alak ba ñu leen alak gaaf ga tax na yonente bi sallallahu bi mu xamee ne daa ngi jaar ci xur woowu mu ne daa ngi gis ay teen yu am ndox bu ca kenn góox bu ca kenn naan moom ci boppam bi mu agsee dafa fab yëreem teg ci bakkanam ngir bañ a noyyi suuf soosale lu ko waral nañu fa def gëléem nga xam ne wut la saalix saalix mooy borom gëléem gi mi nga xam ne noon lañu ñu tooñee yàlla ci yi ñu doon def ba suñ borom mere leen ba alag leen alag mbugal moomee malaayka ya ko amee woon seen takkandoor du fa jub mukk ba nga xam ne texee di nga xam ne moo leen dal moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ mu wàll kenn ci saxaaba yi ba mu ne bu kenn jëfandikoo ci ndox ma bu kenn naan te ba ñu ñëwee mu fekk ñu mooñ ca sunguf ba war koo def mburu mu ne mbaa kenn naanu si ñu ne ko ah, am na ñu góox mu ne mbaa kenn def ñu ne am na luñ ci mooñal mu ne tuur leen ko tuur leen ko te bu ngeen bu ngeen weesoo fii ngeen raxas ko noonu nga xam ne noonu la musiba moo xam ne mu ngi jóge ci tukkee ci merum suñu borom noonu lay defee gaaf ca béréb ba ba faw bërëb boo xam ne itam nitu yàlla dëgg jaamu na fa suñu borom xeetu jaamu woo xam ne bariwul ci pàkki suuf yi fu ñu ko jaamoo ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na bépp bërëb boo xam ne julli nga fa julli bu ñu nangu béréb yu ko wër yépp dañuy ñee dañuy ñee bërëb boobale te ku nekk xam na ne wala ku nekk rafet nga njort ba àtt na waat ne sëñ Tuubaa jaamu ju mu jaamu fii sellal ci kawuk sellal ci biiruk sellal la fa def boo xam ne suñu borom nangu na ko te ngërëmal suñu borom wàcc na fa te yërmande suñu borom du jóg mukk ci béréb boobee ba saa taxaw ni ko waxee woon rek. loolu ne taaliba bi mu ngi jëm si ci béréb boobu mu teewlu jaam boo xam ne defal na suñ boroom loo xam ne ci béréb yoo xam ne kenn defu ko fa. ba mu ngërëm ko ngërëm loo xam ne daf ko koo jagleel may ko fa may goo xam ne moom la ko jagleel nga jëm fa teewlu loolu la yow itam nga fas suñu borom defal la may goo xam ne sa ay nawle yi jaarul fi nga jaar duñu ko am boo ko yéenee loo fa def loo fa ñaan suñu borom ko dina ko nangu insha allahu te la nga yéene loo fa sabab lu mooy loo yëkkati def ko wala ñaan goo ñaan wala koo dimbali wala loo def ci lu baax lu mu doon bërëb boobee nga ko defee mooy yokk valeur jëf joojee nga jëf xam ngeen ne rawxaaniya bërëb bu ëpp rawxaaniya ca la ñaan gën a nangoo ca la ngërëmal yàlla gën a gaawe bërëb ak jamono bu ci nekk dana am rawxaaniya ni ngeen xamee ne guddi ajjuma guddi altine weeru koor yooyu yëpp ni ñu ëpp rawxaaniya yeneen i bërëb yi itam bërëb yi nga xam ne suñu borom def na bërëb yonent ñu denc fa yonent wala ñu denc fa wàll yu wala yonent sax fa jaamu fa yàlla lu yàgg wala wàll yu sax fa jaamu fa yàlla lu yàgg bërëb yooyu ni muy wuuteeg yeneen bërëb yi noona la jaamu yàlla ci bërëb ba walla teewlu fa wala julli fa wala ñaan fa wala def fa genn xeetu jaamu yàlla noonu la amee doole noonu la gën a amee doole ci nga def ko feneen Seydina Abdullah ibnu Abbas dafa am benn garab gu gu tuuti goo xam ne day tëdd ci suuf ñuy gis bis bu ne mu di ko yëkkati di bale taat bi di ci sotti ndox samp bant yeew ko ci ngir di ko jubbanti ñu ne ko waaw yow garab gii li nga ciy def lu ko waral mu ne yonent bi sallallahu alayhi toogoon fii ba ne garab gi laal na mbubbam ngeen gis ne kon ñi nga xam ne xam nañu yàlla dëgg dañu gis ne waaye yàlla dëgg ji suñu borom fonk rawatina ku mu gërëm daraam tuuti lépp lu ne mën nga ko caa jëriñu waaye mu ngi aju ci sa xam-xam ak sa yéene ak sa pas-pas rek kon bu fekkente ne jëmm ji nga xam ne dafa bëgg ku yàlla bëgg jóge ci béréb yu sori jëm si fi bépp jéego bu mu jéggi lu mu yëkkati ci alalam def ca ba ci noyyi gum fi noyyi jaamu yàlla la goo xam ne du ku jóg mën koo am ku daju dalul ci béréb yu mel noonu wala lu mel noonu yëkkati la ku ko deful da nga ko raweel boo xam ne du la ko mën a jotati du la mën a jot ah bi nag bu bëggee nag jëfam gën a am solo ndax ñaari nit daañu bokk jenn jëf jëf ji kenn ki mën koo jëf junni yoon ki ko jëf benn yoon rek ëpp ëppale ko loolu lu ko waral ci ay melo la ànd te melo yooyu moom la sëñ Tuubaa jàngale tàmbalee ci yar ak teggin moom lañ fi gis mu bind téere boo xam ne yar ak teggin rek la ca jàngale loolu lu ko waral xam gi mu xam yar ak teggin ni muy def nit ak li muy jox nit ci loo xam ne lii budul woon yar ak teggin mënu ko am ndax moom wax na sax ba ne lépp lu nit sàkku te booliwu ca yar ak teggin daañu ko xañ barke ba te bootul du am loola yar ak teggin fi mu tàmbalee na nga yéene sa mbokkum jullit li nga yéene sa bopp rawatina sa mbokkum taalibe bokk na ci yar jëpp jikko joo xam ne ji ju lay teqaleeg sa mbokkum jullit la wala sa mbokkum taalibe nga fexe ba dañ ci yow te jikko yooyu li ci gën a bon mooy bëgg daraja mooy bëgg àdduna mooy bëgg lu teew te yooyu yëpp day lor jaam bi day def ay tâche ci xolam di lëndëm goo xam ne day dox digganteem ak bëgg yàlla di dox digganteem ak xam na muy bëggee sëriñ bi mu bëgg waaye bu fekkente ne taalibe bi dañoo wax ne loolu wax nañ ko ba tay soxla ñu ci dellu bëgg gi mu bëgg sëriñ bi moo ko yeew ci sëriñ bi ci lay jëriñoo waaye bëgg gi ko sëriñ bi bëgg du li koy jëriñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquran daf ne ko innaka laa tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yashaa du caa génn kat ku la neex nga jubal ko man maay jubal ki ma soob waaye nag ku bëgg yonent bi moom ku bëgg yàlla dal di jub dal di texe bëgg yàlla bëgg yonent bi bëgg waaye yàlla ndax boo bëggee waaye yàlla da bëgg yàlla moo tax boo bëggee yonent bi da bëgg yàlla moo tax nag dafa am lu koy sellal ba nga xam ne dara du ko yàq te mooy mucc ci yi waxoon sànq sëriñ bi yar gi mu tàmbalee yare moo di woyof woyof la gën a fonk te woyof mooy koo gis rek fës ko yéene féete suuf koo gis fës ko yéenee jëriñ na nga fexe ba nga jëriñ ko yow lu ëpp lim lay jëriñ bu ko defee nga jiitu ko ci wet googu na ko bëgg ngir bëgg gi mu bëgg yàlla ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi ngir bëgg gi mu bëgg sëriñ Tuuba nga bëgg ko ngir loolu loolu mooy tax nga am jëriñoo ci bëgg ndax bëgg balay mat da ngay bëgg li nga bëgg dangay bëgg lépp lu ca jëm ak lépp lu ca tax ak lépp lu ko xeeñ wax naa léegi Seydina Abdullah ibnu Abbas ni mu doon bëggee garab googu ak ni mu ko daan toppatoo ba léegi soo demee Caire dañ lay won dem nitu yonent bi sallallahu alayhi mu wóor na ne garde googu ñu ko garde junni at ak ñeenti téeméer ba léegi ak lu tegu lu tegu ba léegi ñu téye ko fa xam ni yonent bi sallallahu alayhi ko suñu borom fonke ñu xam ne léppam njariñ la ndax limaam alxasaali yi wax na ci ixyaa ulumi diini ne benn wëñ bu bokk ci mbubbam wala benn karawam mën na ramum réew gaa ñi ko ton ñi ko donn itam noonu la seen mbir demee xam ne dañ lay won karawu yonent bi sallallahu alayhi boo demee boo neexlee ci jàkka yi Seydina Xuseyn fa nga xam ne fa la bopp ba nekk ndax yaram waa nga Karbala bopp baa ngi Taahira ci Caire boo duggee da nga gis xetu cuuraay doy waar lu neex naar yu jigéen yi di sor xollet rek boo neexlee boo duggee ba ca biir karawu yonent bi sax xam dañ ko def ci benn weer doo ko laal de da laal weer bi nag ba xool gis karaw bi ni mu demee ak ni mu mel lépp waaye doo laal karaw bi ci boppam daañu la won wëñ gu bokkoon ci mbubbam daañu la won dammit bu bokkoon ci yetam danga gis kaamil bu sidna Alioune bind da nga gis kaamil bi nga xam ne sidna Ousmane bi ñu koy rey page bi mu ubbi woon fa fekk ko mu laaw deret ji da nga ni mu ci taché nga delloog moom loolu lépp lu ko waral muy lu ñuy barkeeloo ndax barkeelu wax nañ ne coxeelu nit ki na muy teewloo ak na muy yëgi ci xolam màggaayu bërëb bi ak ni mu koy fonke ci la ak jëriñoo mu gën a gaawe mu ne nag bu fekkente ne dañu ne suñu mbokk jullit suñu mbokk taalibe fu mu toll nañ ko gën a suufe nu ko lu nu yéene suñu bopp nañ ko ko yéene bu bëggee lee nu bëgg ko bu fekkent ne mën nañ ko ko bàyyee te du nu lor nu bàyyee ko ko kenn ku ci nekk bëgg sa moroom jiitu jiitu la mi nga xamee ne saxaaba yi buñ leen masaan laaj benn xaddis bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ñu xam ne kii xam na ko kii xam na ko kii xam na ko kenn du ko ci nangoo wax mel ne yow da ngay seen sëñ wala da nga leen a gën a xam wala da nga leen a gën a fàttaliku wala da nga leen di jàngal da nga naan laajal diw kooku itam du ko nanga wax daf naan laajal diw kooku itam du ko wax daf naan laajal diw nga xam ne ñett ci ànd ñett li waxi yonante bi sallallahu alayhi wasallam juum ci benn xaraf na mu ko waxee woon ulama yi wuute nañ ci waaye saxaaba yi gënoon a jege yonent moom ragal nañ ko ragal nañu loolu lool ah ñaareel bi diw nekk fi diw nekk fi diw nekk fi ñu dala laaj nga di ko wax diw nekk fi loolu ragal nañu ne dana doon ak rëy ci ñoom ba nga xam ne jiitu ci boppam lu di lu leen diisoon la lu fooroon la lu dul muy ndigal ñu digal leen ko lii war a fii misaal naan bu lakk amee lu diis mooy lakk ndax duñ ko àttan ba yëkkati ko li gën a woyof mooy rëcc mooy mucc ndax dafay woyof ñu fukk ko génne safara wi du ko lakk taalibe yi noonu lañ demee taalibe bu la ci gën a woyof gën laa yéene sa moroom jàmm gën laa bëgg jubóo gi ma maasare mat a mat ndax yoon wi yëkkatiku ndax diine lislaam yëkkatiku ndax ñi ci nekk ñu naw leen ndax kenn du leen du xeeb lislaam ngir ñoom kookaa la ëpp daraja moo la gën kon képp koo xam ne am nga xëru na taalibe gën a juboo gën a nekk benn ba ñu naw leen ba xam ne lii ñu nekk kat lu rëy rëy la mooy lii leen boole ndax li gën a am solo moo di dindi rëy gi taalib bi murit lu bari ci rëy dañ na ci moom nangu na lu bari loo xam ne ku ñu tërbiyewul doo ko nangu li tax sëñ Tuubaa njëkk a tàmbalee ci tërbiye xam na ne xol rek ay dara te xol bi tërbiye ba dindi jikko yu bon yi ndax boo dee sax naan damay topp sunna damay rew yonent bi sallallahu alayhi wasallam te yow yaa ngi jëfe ni yonent bi doon jëfe ci zahir waaye xol bi nga xam ne moo nekk ci yow nga di ko jëfaale loolu xol ba niroowul ak dara ca la li yonent bi santaane na ko xol yi mel ni mu bëgg xol yi mel ko sag roy yonent bi sag topp sunna lu woyof la waaye jëmm ji nga xam ne yonent bi dafa am béréb yoo xam ne bala nga fay dugg sa xol day set tëcc dañ tuubaa joxe ay duruus yu bari ci li ñuy wax pureté sell pureté tëdd cœur maanaam sell boo xam ne xol bi sell na ko ba nga xam ne amul benn tomb dara yoo xam ne du yàlla foofu la góor ñi rawantee ndax xol mooy li ñu war a ittewoo te yoon wi xol la gën a ittewoo ndax ki la gën a sell xol yemu leenug julli yemu leen koor yemu leen addiye yemu leenug liggéey kon ki ëpp valeur ci taalibe yi ki ci ëpp valeur mooy ki xam ne jàpp na ne ku nekk taalib bu nekk ku ko gën taalib bu nekk ko gën bu dara ñëwee mu yéene ko moromum taalibeem lépp lu mu yaakaar ne dana indi waroo seen diggante wala dana tax ñàkk juboo am walla waxante bu ko dindee jihaar na mu xam mu dindi ko ci sippi daraje boppam wala ci kàddoom wala ci alalam wala nu mu ko mën a defee rek jihaad na jihaad joo xam ne mooy jihaad bi Sëñ Tuubaa gën a fonk gën koo naw buñ delloo rek ci mag ñi mu yaroon ñu gis ne kenn ku ci ne dafa xam lu bare bare bare bare bare bare ci zaahir ak ci baatin mel ni xamuñu dara ci lépp fële ku gis sa moroom féete ko suuf lu dul ndigal lu dul ndigal rek fonkuloo ko ndigal te ngeen ni ko sëñ Murtada waxe sànq ataalallahu umrahu ne ndigal li sëñ bii digle mooy bàyyi tere yépp topp ndigal yi lépp nga def ko li nga ca man ndax nit dafa am siyaasa maanaam politique ak boppam ak xolam loolu mooy lan gannaaw lu ñuy wax sacrifice maanaam tamxiya nit ki def léeg-léeg mu am ay gendiku gendiku mooy lan cet cet fàttaliku fu mu jàdde mu ne naa def téeméeri astafirullah al azim naa def téeméeri salaatu ala nabi def ko addiyee ndax yàlla loolu day toog ba mu yàgg mu ne am na ku aajo woo naa forcé rek dimbale ko ci aajo ju ngir jëmmi def ko addiyee jekki ba mu yàgg nga ne man de sonn tàyyi naa lool waaye maa ngi ñëw gëdd julli ñaari rakka ndax sëñ Tuubaa bi muy lim jëf yi gën a am solo boole na ci jëf ji nga xam ne dangaa forcé sa bopp mu naqar la mu metti la limaale ca aji foqale ji woor a gën ci moom ki bëgg daraja daan daaneel darajaam moo moo ëpp tuyaabal lépp ci moom ni nga xamee ne boo demee màkk yow ma fa dëkkul di wër kaaba ga moo ëpp tuyaaba ngay julli waaye ña dëkk nga xam ne mën nañuy wër kaaba gi fu ñu toll ñoom jullee ëpp tuyaaba ci ñoom ndax jëf jeexital ji muy jeexital ci xol daf ca bokk te li nga miin li tax ñuy bañ miin sëriñ da ngay dal di gis doomu aadama gi mu nekk doomu aadama mu niroog yow ci lépp jëriñu ci moom jafe la ndax dañoo bëgg sëriñ boo ko gisee rek jàjju sa xel dem ci yàlla boo ko gisee rek jàjju boo ko gisee rek tiitaat boo ko gisee taat rek sa xel demaat ci lu baax demaat ci yàlla nga wëlbati ko tuuti mooy gën a tax nga gën ci mën a jariñu boo tax ñu ne sëriñ bi mat sëriñ boo amoon ak moom ñeent fukki atit du tax nga yàpp du tax da ngay day tax bis boo xëyee rek gën koo naw mooy ki mat bis boo xëyee rek di gis ci ay jikkoom lu la gën a naw kooku mooy moom leçon la bu tegu ci sa kanam te murit moom war na am fit ndax sëñ Tuubaa dafa ëpp ñëpp fit ku yebu seet defi bi mu bi mu def àdduna bi mu def tubaab bi bi mu def ceddo yi bi mu def lépp fit ba gën a rëy ci fit yi rek moo ko mën a may nit muñ itam murit bu ne war nga ko jàng bu baax a baax ndax muñ mooy genn wàllu diine yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne as sabru nisful imaani doo am dara lu dul muñ ànd na ca rek lépp luy wut na fekk nga gànnaay yoo muñ te xam ne day weesu rek maam Cheikh Mbaye dafa ne fa dum ala sabri fa kullu bat i lahu nihayatun walaw an bata saxal ci muñ ndax lépp lu tàmbali lu metti metti am na fu muy yem lu mu yàgg-yàgg rek am na fu muy yem te fekkee ne dafa am ay laaj Ah, متوازنين اه واو واو واو تقريبا اه وقت جبنا وانكرت لي daanaka. comme question xam naa li mu wax ne waa ji liggéey fii moom la waxtoom jot ah loolu moo tax xam nga même sax man amoon naa xalaatu ba ñu commencé rek ñu tàmbalee ci laaj yi ndax dana am solo lool waaw ci lay mën a développé waaye boo dee tatoone nii rek di wax ji amuloo plan joxuñu la woon thème kon de euh, wax nañu euh, taalibe bi bu jëmee ci bërëb boo xam ne sëñ ba jaar na fa te mu bëgg faa jariñu la muy fas ci xolam ak na muy yëge màggaayu bërëb bi teewlu kàttanu suñu borom teewlu ak baaxam wax na nañu itam ni nga xam ne moom la war a àndeek ay mbokki taalibeem ak ni nga xam ne noonu la war a àndeek ay mbokki jullitam ndax murid dafa war a nekk jullit ba gën ci jullit ñi ndax engagement bi ma waxoon engagement bi nu waxoon sànq maanaam murid daf ko engagé muy di beneen ñaareelu engagé ci biir diine ci biir cadre islam ah ki nga xam ne nag moom la àndal moom di ko xam ne dafa joxe ay exemple ci wet bu nekk ah, sant itam taalibi ñu roy ko bind xam ci tawxid lu doy sëkk moo nga xam fa ngay teg yàlla bind ci fiq lu doy sëkk sëkk sëkk ba nga xam ne ku ko xam di alim di faqih bind ci tasawuf bindit ci yar ak teggiin ci yar ak teggiin loolu lépp nag mu résumé ko ci li ñuy wax application pratique ci jëf résumé bi moo di ñi mu daan yar ba ñu mel nañu war a mel ñu jiital leen tofal ci ñoom mbooloo ñu war a jiite mbooloo moom itam di leen yar di leen leeralal ñu dem nag ba ci jamono boo xam ne yàqu-yàqu gën naa bari xam ngeen ne lislaam ci boppam sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sunu boroom dana yebal ci bopp bépp téeméeri at jëmm joo xam ne dana ñëw beesal ci lislaam lislaam du rab waaye nit ñi ñooy dem ba am ay aada yu dul seeni aada ñëw ñu jox leen ko ba nga xam ne moom la ñuy aada woo daan gis ne euh, fi mu nekk même bu dee sax mbooloom jullit ñi bu ñu waxee lu day kii ñu daal di tàccu te muy aada joo xam ne du suñuy aada muy aaday ñeneen feneen koo xam ne euh, sole nañu ak nun ñu gis ne buñ amee lu naqari dañuy manifester ñuy def ay minutes de silence itam ñu gis ne am na yu bari yoo xam ne seytaane ngi ñu koy fëkk noo ngi rëcc tuuti di wacc aaday lislaam ak yaru lislaam ak meluñu murit ak aaday murit ak seeni doxalin ak lislaam kon gannaaw ñi nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi ci ak ni mu mate moom la suñu di sàkk ci bopp bépp téeméeri ak jëmm ju ñëw salaat ko ci xol yi nit ñi ak seeni xelaat ak seeni xel kon yoon itam yoon wu doon lu borom mat mat mat lu yoonoo mat mat mat war nañu di dellu siwaat di seetaat yoon wi di ko beesalaat di seet ñi ca njëkk a jaar ak fañ leen jaarale nañ leen ko jaarale nu dellu ca jaaraat te ci suñu bopp muy tëj diit te nu bañ nu wattandiku lenn lan xalaat sa xalaatu bopp def ko muy yoon wala muy yoonu murit wala mu bokk ci yoonu murit nga xam ne li yow yaa ko xalaatal sa bopp doxale nii waaye jële woo ko ci ndigal jële woo ko ci lu sëriñ bind wala loo xam ne kilifaa la ko jox nu wattandiku ko yu mel noonu lañu tudde biddaa biddaa al bidaatu mooy maanaam daal lu bees lu ñu sos nouveauté xam ngeen ne sax dana nekk digression waaye ba tey ci diine ji la waxtaane nañ ko sax ay yoon mel ne nit ñi daañu wax bidaa bu rafet hmm. li tax ànduma ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kullu bid'atin dalalatun waaw kullu bit atin dala lépp lu euh, bidaa rek ak réer la te kon ak réer mënu la rafet kullu bit atin dalalatun wa kullu dalalatin fi naari ba gàmmu ñu naan biddaa bu rafet la d'accord ci ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ummati sama xeet yi du daje ci réer te daanaka xeet bépp daje nañ ci gàmmu kon duñ ko mën a tuddee bidaa te it bidaa yi duñ mën ci sàkk duñ ci mën a sàkk lu rafet lu mu doon dañ naan ijtihaad la ijtihad moy, yow mu toog ba mu yàgg waxoon naa ko fële ñu ca question bi ñu ko posé yow mu toog ba mu nga de guddi wala guddi altine wala bisu nangam la na def nangami salatu ala nabi na jàng sayit sangam ak nangam nangam nga xam loolu yaa seet mu rafet nga teg ko sa bopp ijtihad nga ijtihad <coughs> mooy loo xam ci cadre l'islam ba mu rafet mu baax mu lu rafet la te lu dagan la nga sas ko sa bopp gàmmu noonu la demee ijtihaad la hmm. mënuñu koo tuddee biddaa bu rafet mënuñu koo tuddee biddaa sax ndax buñ ko tuddee biddaa buñ ci tegee rafet kon li bi wax nag kullu bidatin dalaalatun dalaala na muy rafete ak réer na muy rafete ummati laa tajtamu ala dalaalati sama xel du daje mukk ci réer ah ku daje nañ ci gàmmu kon gàmmu du gannaaw du dalaala kon du ak réer du du biddaa mu nekk biddaa léegi nag kon loolu lu mu doon ijtihaad moo di mujaddidoon yi li ñuy indi waxtaane na ko am na benn conférence boo xam ne thème bi tëj jiit la woon mujaddidoon yi li ñu indi ba beesal diine ji ni ko yonente bi salaa sallam waxe ne suñu borom mooy yebal ki koy def du bidaa lu mu doon ijtihaad la ijtihaad la ko tàmbalee ci omar ibnu abdul aziz ba ci limaamu shafii ba ci baaqalaani ولا سولو كي لا اخره با سي غزالي من موجيتو د با سي احمد بامب مي ني مصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء ويني احمد بيسل لي ني بيسل يور مريد اجتهاد لا سيدنا تبا دفا نيو غير خات لي ديف نيغا خامني نون لا واخي ني موسى كو واخنا كو سي ولا فال بي بودول وانا ديم بي ولا نصرانو تا بالله نييب ديم نيران لي سيدنا كي ابلاي مباي موم بير واخون لغي ci dem gi mu demoon ci géej gi loolu ku mën ne bi daala loolu la gaa mu demee nekk ci yàlla dëggu ci dëggu goo xam ne tax nga noonu lislaam yépp ragal la ragal gi ñu la ragal tax ñu song la ak seeni pexe nga loo yàlla dëërloo sëg ngëm ba mucc ku ko mës a def duñ ne bi daala def rek moom mooy ijtihaad lañ ko tuddee ijtihaad mooy yooyu yooyu mooy ijtihaad Euh, lu war a dese ci heure ah, xam ngeen ni nag euh, waxtaan moom bu fekkee ne amul thème te da agsi rek ñu ne la waxtaan <laughs> da ngay wëndeelu doo xam fooy tàmbaleeg fooy yem ak fooy jaar ak fooy jëm bu fekkente ne dañu bindoon thème wax ma ma toog ma tëral sama plan wala muy ay ay laaj nga xam ne damay tontu laaj yi di ko xeraa di ko leeral di ko matal ba ay njëriñ di ci génn nit ba tey doon waxtaan woo xam ne wu ñu mën a dégg la te xam ngeen ne toogaay bu yàgg conférence yi moom toogaay bu yàgg bay énervé bu énervé li mu xamoon bi waaw يوم القيامة في الجوار من waaw waaw kon xanaa mën nañoo tëj